man dans l'opposition li amagum Khalifa Sall moo nekk gum favori. Mhm. xamal des fois nag Sénégal dafa naqaree wax mhm. mais Khalifa Sall il est candidat. et mhm. clair candidat. il faut pas comparer un candidat qui est déjà bien presque officiel ak qui quelqu'un qui n'est pas encore candidat qui a un qui a des dossiers sur sur sur ces donc lii xew a gum nii xam nga Khalifa du moroomu nañ waxante dëgg bon ma bàyyi wax moroomu <laughs> mais Khalifa Sall ci cadre ci cadre politique. Mhm. expérience ak base. bokkut ak PRP. Mhm. bokkut ak Bougane. Mhm. bokkut ak Mimi Touré. yaa ngi dégg bokkut ak bokkut ak teg ci ay coalition lañ jëm jëmuñ ci ci ci poids rek laa wax moom kese. loolu laa wax. mu des nag coalition yi fa yéene judd ak. ay leader yu am parti am base yu war a ñëw rallier ak moom. ba pare Khalifa liggéey na ak ñaari président. ba noppi waxuma la sa liggéey na ak ñaari président en tant que ba pare exercer ca biir gouvernement ba. Mhm. mais li ma lay tuddal ñii naan la ay ay ay euh, am na boroomi xam-xam yoo xam ne tënkuwuñ ci ay sentiments. Mhm. pour soutenir un candidat tënkuwuñ ci ay sentiments pour voter mais dañu tënku ci ay expérience ak xam-xam. Mhm. ak ak ak càmbar les personnes. ñi taxaw ne dañoo bëgg réew mi. te ñooñu doo ci génnee euh, parti bi bi rallié ak ak Khalifa Sall fan yële passé c' est mhm, un exemple que je donne LD c' exemple que je donne LD debout mhm. am na yeneen partie yoo xamante nii ñoom seen yoon ci sentiment seen yoon ci lee li xew mooy dafa am lu xew li ñii ñoo fi nekk lu mhm. xool ki ci ëpp expérience ki nga xam ne yaakaar nañ ne mooy moo mën a gérer ñu ànd ak moom te ñooñu parti ancien parti yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne ay fukki fukki militant la ñu am ñii deux ñii cent bul xeeb loolu di dem. Mhm. bul xeeb loolu di dem parce que dañuy fekk ci une force déjà installée muy le cas de Khalifa te ñeneen ñi ñu tudd ñëpp man góobu ne euh, dinañu am une coalition assez grande que celle de de de, de Khalifa moo tax mhm. euh, li li figuré wu c'est xalifa et mhm. Amadou Ba. mais réaction bu Diouf Sarr étonné la parce que Diouf ak Amadou Ba. yaa ngi koy junj sànq seen i nekkoon nañ fii di jàmmaarloo jàmmaarloo bu metti mhm. gannaaw bi choix wu candidat bi amee Diouf Sarr dafa xam dafa ne mhm. day jàppale Amadou Ba mhm. donc loolu du choix boo xam ne bett na la d'accord euh, mais ay militant xam nga xam nga ay ay ay defante ci politique moom fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mais militant yu jubawul militant yi seen leader la soutenir mooy waral des fois yenn frustration yi mais leader yi mën nañ juboo te man mosuma woon yaa parce que jour boobu noonu ba ñuy ñëw juboo moo tax ñu ñëw fa. mais c'était dañoo ñëwoon pour ce n'était pas la première fois ñu jàppante de parce que defoon nañ ko ci parcelle. mais mais mais loolu wane sa bopp la c'est-à-dire candidat bu nekk euh, wala bu nekk day wane ne sama leader la fi nekk day def un cri. pour wane ne sama leader moo fi nekk président Macky Sall comme mu ngi tànn na jàpp ne am euh, kii Abdoulaye Diouf Sarr comme moom dëggal na ne candidat lay doon. Mm-hmm. na ko soutenir Amadou wala bëggutoon ne candidat donc man jàpp ma ne mën na surprendre nit ñi ñoom yi mm-hmm. neen la mm-hmm. donc bu ñu jubóoyee xëy na peut-être ñoom yi neen la bu ñu jubóowul tamit moom yi neen la xanaa kay li ñu doon wax mooy li lu mënoon a surprendre nit ñi mooy Aly Ngouille Ndiaye ñëw rangé wu ci ginnaawam mm-hmm. loolu mooy surprendre nit ñi mooy Mame Boye Diao ñëw rangé wu Abdoulaye Daouda Diallo ñëw rangé wu facilement quoi ñu def déclaration la ñoom ñëpp dem nañ mais ay euh, kii ba mu tudd sax ki nekk euh, Fatick Matar Ba Matar Ba bu ñëw rangé wu ay duuduka bu ñëw rangé wu. waaw Matar Ba moom du mbetteel. ndax bu ñuy wax lu loyauté amadu Ba loyauté boobu aussi gis nañ ko ci Matar Ba.